waa daali noo def yaa ngi ci jàmm maa ngi fii maa ngi fi maa raw wuy ma yaa ngi sa kër waaw wuy dama laa soxla est mën nga fi ñëw léegi léegi ñëw fi léegi léegi nii dama laa soxla waa baax na léegi léegi. man sama kau waa kay kaaw moom sax nag moo taxoon ma woolu la waa dama ni lini, même sa bopp bi do ko wat la li nim ñàggaarale nii lii lan la ñàggaarale nii lo loolu la ci ma ma la ci ma la ci ma waa waa léegi nim sa xëy ni ak fi, fii fi la yam rek Wa waaw fa fa ma ma yëpp laa sëq la fii daa am fii nii ma xool eh. won ma ma xool waaw wan ma tuuti damay xool ndax sëq na loolu baaxul loolu baaxul loolu kenn ko bàyyi hmm, nga loolu baaxul la fay loolu kenn ko bàyyi nga daali sama nit nga yàlla moo ñu boole ñu dëkk fii ci koñ bi suñu ñett kër yi dende lool dara lu ñaaw waru fee xëj su ma amee lu ma naqari nag yaakaar naa war naa ci mën a partager ak yow dem yaakaar naa la ci kaaw moomu de laa xàmmeetul hmm? ji koy kàkkatar daal guddi yu ma toll nii moom la yor di ko dund ak man waaw topp benn mère rek nag ci koñ bi mère bu màgget xàmmeetul tàkkusaan xàmmeetul midi xàmmeetul une heure heure bu ko sentire lay dem te mère boobu xam nga ko bu baax yaayu njànku xanaa néew ma sa yaay ba loolu naka sa yaay ma nekk ma nekk xale nga way su ma nekk mag doo ma def fay fay yow de ba tey xale ngay doon si man dangaa ah, baax rek man maa gën de man léegi ma am jabar waaw ma xool ndax maa di nga keroog wax naa dama naa ci waxtaan ak Ah, wàcc ma wàcc ma ah, def ma nii wàcc ma wàcc ma puusal puusal. ah sama maam ngay bañ ko ko tudd. waaw tudd de. waaw tudd ko. dama koy tudd tuddu ko nga waxtaan si yow dong. sam papa. maman noonu dala la def wax ma leneen dang ko dégg wala da nga kaa gis. dama ci ñaawoon njot ma sol samay daal dem ba foofu maman ne ma carrément sekkuñu leen xaritam kese la càmmiñam la dalal ma ma gëm ko ñibbisi mais seen beneen doom bi. kooku di gens nu mu tuddati ndaayaan moo ñëw ba fii xamal ma ne carrément sama jëkkër a ngi doxaan seen yaay te su ko moytuwul da koy rey. ëpp ko mbattaa ko ànd ne ndaayaan mi di naan gens mën loo dégg. mun na ma lu ma dégg ndax doomu aadama la daa màndi xel bi demul ndem metti na ko nag ba mu ma fii ne ma carrément su ma tëyewul sama jëkkër da koy rey. la wax. te man ni jikkoy màndikat moom jikkoy caga la yor su ko waxee mun na koo def xaatuma ci kenn nag comme xaritam nga doomu ndeyam nga mane naa la woo su bëggee nag biyam na bàyyi sama jëkkër duñ ca ndax maag sama jëkkër ba xale la puti ba grand ba may xale xamuma kenn moom laa xam ba muy doxee ñaari tànkam yi dem ba fu mu ne nii da koo ñetteel di doxee ñetti tànk nag du ma ko bàyyi benn jigéen bu mu ko sax xalaat ci àddunaam su bëggee jàmm daal na bàyyi sama jëkkër ko suñu dëkkandoo dafa yàgg lool nag. dëgg la. te yaayu njànku di sama xarit nag. dafa leer. ñu dëkk ñun ñett ñëpp ci benn koñ te dëkk bi dara ñaawu ci. dëgg la tey maara day taali boo yuuxu woon balaa sa benn bokk ñëw ñun ñooy ñëw ñu nit noonu danaa def ba dootul duggati ci kër googu. nangul naa li nga wax waaye déggoo ma ne la ba ma ci ñaawee njot xuloo yóbbu ma woon waxtaan kese la te ba ma dalalee damaa dellu si mais dañ naan seytaane. fu mu xajul rek lay dugg ba doomam jooju ñëw fii ak si ma muy ndaayaan wax na ma wax joo xam ne sama xol bi la jam daa dem rek daa wane ginaaw rek ma jug topp ko dem àkki ji ko ñu sot sotoo ma nag ah? waaw kon moo àggee wu ma la foofu de moog doomam dañ maa wol ni tiga deggee sama yaram bi su ma futteeku woon woon la léppay tërgën yow dañ laa door dañ maa wol ni tiga dege dootul am dama doon wax ne doom jee dof mais ndey jee gën a dokkooral laraw mbaa yaa ci jàmm mbaa yaa ngi nii naka mu wil wil wil wil ñoo toog maa ngi nii wil bi taw taw na kañ ngay jóg ma toog waaw toogal naa la i ñaan ko waaw taw na xa kii xamoo ko sax moo gën a bal jikko kii sa doom da yaroo moo gën a doom papa ko bu laal bu laal bu tas yaroo da may dafa ndànk rek waaw kay ndaat tey eh daaneen baaxul de yàgg ngaa daaneel way baaxul de xaale xaale hôtesse ci loo nekk waa sama doom ndey gis nga de xool day gisee. laaj yow léegi ñàngoo la indi wala man. moom a indi waaye kii foog nga koy réglé. ndax réglé woo ko kii kii kii kii moo wala lekk. kii yow de lakkatul sama yaay sax. ndok ah, maa ko bëgg moom daal la ndayale doy na. kan bu ma xam bu ma xam kii la su ma amee doom su su su su man ni maa jul ñëw sax xam benn su may sëy soo soo naa ay yow lañ man ndayal dama lay bàyyi ba nga ñëw foofu xaaral xaaral daal sañ sama jekk rek su ma la mbéyee xaw ma mbéjee ma mbéj la ba nga dee do fo su ma la mbéjee sa xol sa clé yooyu day day naaw naan naan naan naan ay wee ay wee ay wee mën naa mën naa leen mën naa leen fa fee seen waay jugalan fii nga yow la nga xanaa la nga baax rek di nga xam ne réew naa la mbéj ba sa bëñ nag jugal fii nga yow la nga yow yow yow jugal fii yaa fi war a jóge sa droit yëpp naa ko toj eh yow eh ah. jugal nga dem fooy yow sa droit yëpp naa ko naa naa ko toj bàyyi bàyyi jugal yow su taal su joxe naa fa joxe naa fa waaw bàyyi bàyyi ko rek bàyyi ko rek joxe ñaata joxe ñaata joxe ñaata joxe ñaata waaye nag joxe ñaata joxe ñaata joxe ñaata. fii su may ma koy mat waaw dama sangu dama sangu. jóge fii nga day sangu waaw dama sangu na nga sangu nag. su ma bu boo waxaat loolu dama dama ko waxaat dama waxaat damay sangu waxaat ka. bàyyi maa la ñaan may may ñu ñu waxtaan demal. fiib lekk. fiib fi waxaat fiib. fiib wax ne maa ne pip. waaye waxoo ko ni ma koy waxee saxoo saxoo ko ni ma koy waxee dama la koy juul suuf si laa lay juul dina ko juul dina ko juul dina ko juul fa kenn dootu la gisat. ñaan ko mën nga fee jógee yow laaj ma sa ndey. yow yaa ma xam laaj ma sa ndey. yow laaj ma sa baay yow. waaw dama sangu. way samay sangoo sama sang sa yoo nekkati ay ngay ngay ngay ngay ngay ngay wax oxo ah yawaay sax. ci ma balad de yaroo sa doom. suuf nga toog ak sa doom ji. ne ma sa doom mel ni juruñu ko te ñoo ko bokk. namoon naa la nag. maa ngi nii ci loolu nag gis nga fuñ full de. dañoo yëgoo. <laughs> fàtte ba ñuy jaay cuuraay ya. xam naa watawat mbii mi argaay. mooy xale bi law bee la. booba neexul xam nga bu neex. soo ayee waay da ngay taal cuuraay nga wuddoo say sër takk say fer jaagar jaagari nga kottu sa nijaay tëral ko ca ba te na ko bëggee naan ko gall gàllama gàllama loo gàllama feñ ta nijaay gàllal. <laughs> waaw kay jërëjëf ay fàttaliku sa lëmbal yooyu. macha allah xam lu ma fi indi tey. <sighs> ko de. Eh. <laughs> ma xool boo defee gaaf doo ma xool. muy xelaat lan la ci lan. mama yow lan ngay daw bay daanu ci lan. kaaw soxnaa moo ma woo xanaa nag yow loo góore góor di góor du góor bàyyi fi ma kaaw kaaw lekkul. kaaw naanut kaaw ba bëccëg na ba naaj bi changé couleur yaramam kaaw nag ya mu am du ca lekk naanut soow nagam yi dañuy feebar bay dee si kanamam nit du ko du ci lekk mayul jabaram ñaar dërëm kaaw lu ma bëccëg indil la xanaa war ngaa rus dara yow joolaa dina dugg séeréer dina dugg pël day ñëw bambara ñëw léew léppay ñëw yow daal góor ñi kër gi nga mel ne luy jaay koy jaay lu bon lan la mos nañ laa wax feeb. mos feeb. feeb waaw nga pour yow nga wax ma feeb. feeb yow da ngay dugg sama kër ñëw nii rek li ñu séq war naa mën a tax ngay dugg di ma attaqué te laajoo ma lan la. lan la am kaaw indi kaaw da ngaa xam kaaw lu muy def ci man. la may yëg ci kaaw est-ce que nga ko. loo mënti yëg ci kaaw it soxnaam see mu takk ko ci kër ga moom moo ko gën a yëg. kon newoo fi tubaar fa kaal yi li tax nga yàgg ci àdduna jëkkër doo ko am. àdduna di nga fi yàgg. jërëjëf yàlla naa fi yàgg. meex nga naan ma joolaa séeréer rek pël man encaissé gu ma joolaa. ah ñëwagul ñemewu ma ko. léegi xam nga lu ma lay wax man li may yëg ci kaaw maa ko xam. waaw léegi xam nga man lan laay wax man man lan laay wax ak yow kaaw laa bëgg nga bàyyi ko ci nii wala nga bàyyi ko ci eh. su ma ko bàyyiwul da koy bàyyi force. waaw su ma ko bàyyiwul. du yow xam nga ma xam nga fàtteegoo ma te fa ma ne woon démb eh xool ma fa ma nekkoon démb ba tey fa laa nekk duma ma ci sa kër gi nag naan la ay kaaw ni ay kaaw naa. dégg nga eh dégg déggoo nga yabaate bu bëgg a def ñàkk jom amoo looy rus loo ragal kaaw daal moom koo bàyyi ndax la ma yëg ci moom xamoo eh eh eh di nga bàyyi kaaw la doo ko bàyyi naa ko bàyyi. wëngal wëngal kii doole rek la nag. noq na ma fi noq yoo xam ne du ma ko fàtte ba ba may dee noq yooyu comme noqi njaago duur na maa du cee kii su soxor su soxor